ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir réew mën a jot moo leen vidéo boo ko ngir mën a xam li nga kuy tux wala ngay naan ñëwal taataan ñaan yi nga xamante ne nii Serigne Abdoulaye ñaan bu la ko defalee rek di nga tàggoog moom ma ñu xëccoo njariñ nag ku bëgg nopp ak sëy bu tàqalikoo nga bëgg ñu ñaanal la ci ñëwal seet si sëriñ Abdoulaye Niane néew kàttan ñi nga xamante ni dañoo amee jafe-jafe ci wàllu sëy sëriñ Abdoulaye Niane di ci yëngatu bu baax a baax ku bëgg yilif dara ndombay cat yéen ñi bëgg samp kër bëgg fay ñaan na jigéen gu ñu dëcc ak jigéen ku taxawwa gàllaaju kaso yooyu yëpp sëriñ Abdoulaye ñaan da ciy yëngatu ñëw leen gaaw seet si ko mu defal leen ci ay ñaan defal leen ci itam ay dokk ba jafe-jafe yi ngeen amee yëpp ngeen mën a tàqalikook moom moom sëriñ Abdoulaye ñaan na mi ngi fii ci Ndakaaru képp ku bëgg jokkoo ak moom woo ko ci 77 460 70 89 77 460 70 89 jërëjëf sëriñ Abdoulaye ñaan yow mi tàllal sa loxo askan wi ngir taataan